dikkati naa Sénégal day mooy réew moo xam ni foo ko fekk day dar dari di deltu ginnaaw nip jëm turbine yéen naan man senegal del tooti na ginnaaw ci wàllug nag ak ak yelleefug doomu aadama bi yoon ab rapport la 2023 boo xam ne Civicus Monitor moo ko def ci wàllug àq ak yelleefug doomu adama waaye itam liberté civique yoo xam ne daal dinañ koy salfaañe ñàkkal ko fayda tuñ tuñee ko caxat caxatee ko salfaañe ko daanaka daal saay saaye ko ci réew mi yéen a kaay des média bi naan man Civicus Monitor ma nga naan Sénégal daal léegi bokk na ci réew yoo xam ne daanaka dañ fay wulli ay doomu aadama ci waxtu woo xam mi ngi daal di jub si ñuy daal di caxat-caxat yi ay taskatu xibaar ñu ne déeta waay nag doomu aadama yi opposant bi nag ñu daal di koy duppee sañ-sañu askan yoo xam ne attaqué nañ leen ci 2023 bi ñu daal di koy xayma ci téeméer juróom ñeen fukk ak juróom-ñett ci réew bu Sénégal moom ñuy xam le ni daanaka ndaje su ndaw ab réunion ñi ngi koy tàmbalee tere ci réew mi association di booloo ñi ngi koy tàmbalee tere ci réew mi wax xalaat ñi koy koy tàmbalee tere ci réew mi ay manifeste yoo xam ne opposition moo ko doon amal ñu tas ko ñi nga xam ne dañuy ŋàññi nguur ñu jël tëj ci kaso ay taskatu xibaar ñu jël tëj ci kaso lépp nag daal di tëju gémmi ñu sàmba muy fas yéene walis te walis gi jëmul woon lu dul ci campagne électorale goo xam ne dañ ciy bëgg soobu ci réew mi yéene kaay bi naan man étude bi wane na ni Sénégal li mu am ci wàllug recul ci àq gi yelleef waaye tam sañ-sañ goo xam ne nit ki moomal na ko boppam ñu daal di ko koy xañ li mu ci dund ci ñaawteef 2023 ba Sénégal doonee Sénégal ak tey mësu koo dund te it étude bi dafa wane ni Sénégal place bi nga xam ni am na ko ci acam ga dara waral ko nag lu dul tëj gi nga xam ne tëj nañ ko waaye tam dem ak dikk ci wàllu yoon goo xam ne Ousmane Sonko dëkke na ko ci réew mi te loolee ci jub taayub ay élection jàpp gi ñu jàpp ñeen ngi tëj ci kaso waaye tam faatu yi nga xam ne ay bakkan la rot ci réewum Sénégal te du Sénégal rek de ndaxte daanaka téeméer boo jël fanweer ak lu teg ci réew yi ñi ngi dund ci réew yoo xam ne jaxan na ma daanaka méngoo na ak moom lee fa yéene kaay nan moom en tout cas Sénégal moom deltu na ginnaaw ci wàllu liberté civique ak ak yelleefug doomu aadama di dardari jëm ca ginnaaw Sénégal ba ñu xamee woon wàllu démocratie won ko lool ci Afrique sow jant boobu Sénégal day daanaka dardaree nañ ko yóbbu ginnaaw di Quotidien naan kon waxtu woowu day fii ci Sénégal l'opposition bi tënk nañ leen ba fi mu ne ñu jub campagne électorale képp koo xam ne génn nga fas yéene wax ak say ñoñ ñu daal di dal sa kaw l'évidence yéene kaay naan man bugaan gay dundoon na ko waaye tey jii day ñaabar ñaabari na dem ba Grand Yoff daal ak ña nga xam ñooy waa gëm sa bopp moom njiit la xam le ni dara Sénégal moom li fi nekk fii ak politiciens yi nga xam ne ñoo ŋànk système bi yàgg ŋànk système bi te fas yéene wu ñoo yàbbi système bi jëlewuñu leen fi Sénégal moom ab réew la boo xam ne jàmmam dalam waaye tam soppiteem ci wàllu koomam des na ko dégg rek mukk duñu ko am ku ci nekk foo mënti féetee ci réew mi jógal te xam ni sab carte tey jii mën naa soppi doxalinu Sénégal ëllëg la ngay kaas ci réew mi mu mitti la nga koy naqarlu ci réew mi ci sab xol sab carte day mën na koo saafara fa du yàgg sàkk sagar du xeeñ xeex nag mën naa nekk ci anam mu ne bugaan ni leen bii yoon nañ ko def ab révolution pacifique maanaam xeexee suñu xel waaye tam suñuy carte jële fi li fi nekkoon mën naa ne waaye sañ-sañ gi ñu koy may moom moo ñu daal di dem wote te wote gi nag day ànd ak bëggub coppite coppite goo xam ni daal dëgg-dëgg Sénégal mënees na ca gis boppam réew mi ko dajee nan man en tout cas Doudou Wade ma ngay xam le ni loi bi nga xam ni taxawal nañ ko ci wàllu financement yu parti politique bi Doudou Wade naan loi googee yéex na sa boom jëmul kanam te retard gi dara waralu opposition bi nga xam ne moo nekk ci réew mi boole sañ wax ak sañ jëf 24 heures yéene kaay naan man moom Pastef ab député tuumaal Ousmane Sonko ne dafay jëlee ay financement bitim réew ci ñoo xam ne ay naar lañu ay milliards loolee nag di financer parti bii Pastef te financement yi bu antu woon daanaka këppatalee fu nguuru Sénégal mënoon na caa aajowoo financement yi daal di bàyyeekoo foo xam ne daal dinay louche lool Amadou Ba bu Pastef ne camp bi nga xam ne ñoo wax lii nañu andi ay preuve deesul jox benn na lii su dee am nay preuve na dem woon ko justice wax ko ni lii la naar yi werse woon Pastef jébbalit ay bataaxal yoo xam ne diggante Ousmane Sonko ak ñooñee séqoon nañ ko yéeni kaay bi naan man en tout cas président Macky Sall ma ngay xupp ma ngay xupp nag la nga xam ni moom moo di communication bi am ci gouvernement bi ni mu deltoo ginnaaw Sall naan leen ñi ngi leen di wax te gisuñu benn yoon ak tontu soobu leen ci tontu li leeral askan wi samay jëf le témoin yéeni kaay naan kon benn ngi ci nii député yi dañoo mer lool ci koppar gu bari goo xam ne toll na ci téeméer ak ñeenti milliards weer wu yàlla sàkk yi di ko lekk ci réew mi moom Moustapha Ba xamal leen njëriñu xaalis boobee fu muy dugg waaye tam senegal nan la ciy jariñoo Le Soleil yéene kaay naan maan booba ca Popenguine ña nga fas yéene dalloo ak sanctuaire bu yees moom président Macky sal naan leen Pape François ki mu yónni nan ko teeroo ni buur ci réewum ko L'Enquête Quotidien nan kon ñiy liggéey ci pétrole it bëgg nañ président Macky Sall nga jàppee leen ni buur téeméer lañ leen yoreel ci réew mi Amath Gisse ngi ci suux goo xam leen fayulee koppar gi day làmbaay mën na ñaaw l'observateur naan ko dara buñ leen fayulee koppar gi kay daanaka essence gasoil mooy manqué ci réew mi l'observateur daal di jox kàddu Thierno Alassane Sall muy xam le nii fi mu ne day politique bi xaalis ci boppam moo ko yàq daal dinay soppi doxalin soppi jikko ñenn ñi waaye xaalis ba nga xam ne sàcce woon nañ ko ci covid bi boo maytul ci élection yi lañ koy daal di génnee 4 4 yeeg 8 8 di jaabaa jolle te lii nekk na menace ci sunub démocratie Thierno Alassane Sall naan parrainage moom daanakay la turbine yéene kaay naan kon en tout cas def lu ne weng ci réew mi te dara du ci fekk day moom moo am ay scandale yoo xam ne bu gën a rëy sa morom am ci réew mi France daal di xiddeen dañ koy tudd daal di bàyyi ku ne dem yéeni kaay bi dee média bi naan maan en tout cas Mimi moom moom madame Mbacke naata Samb ma ngi koy tontu ci yéeni kaay bi di ko xamal ne diaspora bi moom mooy fukk ak juróomeelu région bu réewum Sénégal xamal ko ni fees bi nekkul fond boo xam ni day jàppalaate waaye fond la boo xam ni day daal di jagat-jagatee sénégalais yi joxu leen ndimbal waaye daf leen di jàngal ndax ña nga xam ne ñoo nekk bitim réew yoon woo xam ne des na ca mën a jaaree ba daal di tekki andi ci seenum réew naata naan kon fees bi nga ne wàllu politique la amul ndax joyanti koomuk diaspora bi lenn lu ci làngoog politique da caa amul 2008 ak tey lañ ko daal di taxawal mu nekk ab laaf ci ministère bu sénégalais nekk bitim réew lu mu mënoon benn 2017 ñu def ko fukk lu toll ci juróom benn téeméer ñeent fukk ñett ci ay projet yoo xam ne jëlee nañ ko bitim ànd ci Sénégal ñu daal di ko fiy taxawal ci fukk ak ñeenti diiwaan yëpp soxnay diaspora bi lu toll ci ñetti junni ci projet ñu taxawal leen ko ñetti junni ci soxna yoo xam ne ñi ngi ci ñeen fukk dëkk-dëkkaat yoo xam ne benn bokku ceeg sa morom projet bi jàppale leen te lépp nag dafa del siwaat ci réew mi kon du politique politique googee tur bi yéen kaay nan maan diggante parti socialiste AFP bés du ñàkk PSD jant bi ak PIT gannaaw présidentielle 2024 bi ndax du ñu faxasu fa yàllaaxu fukki at ak ñaar ñu la ngaamu ci nguuru Macky Sall gi amal luñ ko njariñ rax ci dooli nekk parti politique yoo xam ne seen seeni militant yëg asamaana ko gën yomb moo taxit tur bi nan maan lan mooy des ci ñoom gannaaw présidentielle bi waxtaaneel ak man ma xamal la ni maam Cheikh Mbaye président bu fédération association africaine ci îles Canaries ma ngay xamle la nga xam ni ma nga am ca îles yooyee moom maam Cheikh Mbaye ne xale yi di doomu Sénégal ñi ngi fees dell ci morgue yi nga xam ne ñoo nekk ci îles Canaries yi ndax espagnol yi nangu ñu jël benn pax dal di leen ciy boole te defal leen ku ne sax bàmmeelu bopp daanaka day miti maam Cheikh naan Afrique mi ngi ñàkk ay ndawam ndax ñi ngi gis ndaw yi ñi ngi yegsi waaye ñi egsiwul daanaka ñoo ëpp fuuf ndax ñi ci bari ci ñoom faatu nañ ci yoon bi des ca ña des ñi ci morgue